bi élection yi jàllee démb euh, te li ci am ñu gis ko ñun ñëpp ñu ci sant yàlla bu baax nag li ñu bëggoon mooy gagné mais ni résultat yi ñëwee amaguñu proclamation officielle mais jàpp nañ ne ndam lañ doon xaar du am mais nag am nañ ndam ndax ñi ma àndal wane nañ seen bopp wane nañ ne am na luñ gëm Sénégal gii ñu nekk bëgg nañ fi dara bëgg nañ fee doxal te itam dinañ ko wuti donc loolu ndam la wër nañ dëkk bi waxtaan nañoo ak njaboot gi loolu yëpp ñu def ko ci jéem a sàmmook li dëkk bi laaj ci fànn yooyu ñoo ngi ciy sant bu baax sëñ Muntaxa mi nga xam ne mooy sëriñ Touba ndax kat dañ ne kilifa day jéggale di jëlale li ci des itam militants yi nga xamante nii ñenn ñi ñoo ngi fii nekk ay kilifa góor jigéen toppuñu ñetti weer yi ñaari weer yi ñaari ñaari semaines yi ak même at yi passé di xeex ak ñun ci xeex boo xamante ne nii nangu nañ cee wéet ndax Cheikhul Khadim mi nga xam ne mooy suñu royukaay bi mu doon xeex da cee wéetoon lool wante li mu xooloon rek mooy objectif maanaam ngërëmul suñu borom ñun itam suñu xeex bi dañuy jàpp ne xeex bu am solo la ci réew mi ndax askanu Touba ak Mbacké dañoo war a am baat ci réew mi te baat boobu warul jaar ci kenn ñoo ko war a téyel seen bopp loolu ñu tax a xeex loolu la ñu nit ñi toppe te loolu lañ doon wane te jàpp naa ne ñu bare bare dégg nañ kon ñoo ngi féliciter militants yi di leen sant di félicité aussi partenaires yi nga xamante ne nii bokkuñu parti Teranga Sénégal bi ñu jiite bokkuñu coalition jot na bi ñu doon jiite mais dañoo nekkoon feneen pas-pas boole ñu ñu ànd di xeex pour que gox bi am ay njiit yoo xamante ne nii dinañ mën a jege askan wi liggéeyal leen donc ñooñu yëpp ñu jóge ci parti yëpp nag ñi jóge APR ñu jóge réew mi ñu jóge ci euh, coalition ñii daanu ñu def politique ñun ñoo leen dugal ci politique ay kilifa lañu yoo xamante ne nii feeñal nañ seen boppu ñëw ñenn ñi nga toog di ñu ñaanal ñenn ñi ngi ñuy woo téléphone di ñu wax seen cofeel ba tey jii rek ñu baree baree bari woo nañ ma ñenn ñi di ma wax ne ñoom day dañoo ñëwoon doon bokk ci komba bi mais léegi des nañ ci biir ñenn ñi di ma woo ma dégg naa sa programme doy nañu euh, te am na ay pàcc yoo xamante ni bëgg nañ ko ànd ak yow doxal ko. te loolu rek lañ bëggoon ñun ci mbir mi liñ bëggoon mooy waxtaan ak nit ñi wan leen ne war nañoo mën a téye suñ yëfi bopp loolu nag du yomb du gaaw xamoon nañ ko ndax njaboot gi dafa yaatu te mënuñoo egg fépp booy tàmbalee tam te amoo banqaas yu yàgg day jafe nga méngee sa méngale sa dooleeg ñi nga xamante ni yàgg nañoo yëngu ñenn ñee riir mi ak turu nit bu ñuy dégg day tax ñu topp nit te ñun li ñuy wax ci xel lañ koy waxee moo tax daanaka il nga egg ci nit ñi pour mën a wax ak ñoom wante rafet nañ njortu lool fan yi nit ñi gën nañoo ràññee li ñu tax a jóg gën nañoo ràññee suñuy jëmm ak jëmmi suñu responsable ba am nañ njort ci liy ñëw kon boog li ci des mooy lii am dañ koy sant yàlla te nag wax dëgg yàlla ku nekk xam na ne ci xob yi xamu fan lay mujjee wante am nañ ci dara kon nañ jël loolu jóg defaraat suñu laxasaay liggéey ngir élection yi di ñëw élection législative dans six mois incha allah bu ñu yàlla may fekkee ak tal dina taxaw bëgg nañ dugal assemblée nationale ñoo xam ne dañ fa taxawal askan wi euh, ki nga xamante ne nii jàpp nañ ne moo rawadi moo moo rawandi maanaam li ñu jot a gis jàpp nañ ne di bu jàllee moom mooy raw mooy Serigne fàllu Mbacké mi nga xam ne moo yoroon conseil département bi jàpp naa ne yeewi askan wi euh, bi ko jiital ñoom coalition boobu jàpp nañ ne ñooy jiitu loolu nag ah dina dem ba tribunal ba ñu proclamer ko mais li ñu gisagoon ci xob yi daanu loolu lañ jàngat ñoo ngi koy ñaanal jàmm ak salaam di ko ñaanal itam lii mu sumb mu jikk askan wi te mu liggéey te bii yoon mbir mi gën a am ay résultats ci yoon yi jàll. liggéey bi duñ ko ko bàyyee ndax am na ñu bokk si ñun ñoo xamante ni bu neexee yàlla dinañ fa nekk ndax ci euh, liste proportionnel bi am na ñoo xam ne buñ jàllee ña nekk ca kaw dinañ mën a bokk ci conseil yi ñooñee dinañ liggéey ak moom. man dama bokk ci coalition bu ñu tuddee coalition jot na gox-goxaat yi moo tax ma bàyyi leen ñu dem ma ñëw fii sampaat beneen coalition ànd koo ki nit. coalition bu ndaw nag boo xam ne ci ci gox bi la yem euh, daanaka ñi ma ko àndal bariwul dama teg rek dañu teg ci communes yi ay nit ñu ànd may félicité aussi loolu dama ko fàtte sànq suñu candidat yi nga xam ne jàll nañ wala mën a am ñu jàll en tout cas pour sûr jàpp naa ne ngay docteur Cheikh Gadiaga jàll na donc ñun suñu coalition am na benn maire foofu déjà euh, dala ngaa laa doon jàpp ne jàll nañ mais am na ñu ne ma ñu am na en tout cas am na ay ay jeexi jaaxa mais boo xoolee communes yu bari ñooy ñëw deuxième ñooy ñëw deuxième Typ Taïba Cekkeen ak yeneen commune euh, Kayel confirmé nañ loolu euh, muy donc source de satisfaction Mesere aussi ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax a baax ça signifie que ndaw yi ñu tegoon foofu mën nañ li taxoon ñu toog leen euh, te itam ñoom ay ñuy doog a dugg ci politique lañ wala ñoo xamante ni seen manteau bopp lañ demee comme ñun ñi ñëpp rek di xeex kon ñooñu ñoo ngi leen di féliciter di leen di leen ñaanal jàmm Euh, coalition nag bu fekkee dañuy dem législative man faral en général ci politique du ma du ma duma du ma du ma fëgg ci buntu kenn parce que jàpp naa ne ay nit laa àndal yoo xam ne gëm nañ li ñuy def te bëgg nañoo dem ku ñëw nag dinañ waxtaan ak yow mais ñun li ñu yore ak programme bi ñu yore ak gëm-gëm bi ñu yore mooy dañuy dox dem ca lañ jëm législative Euh, lii ñu yore ak coalition jot na bi ñu nekkal nga xam ne man maa koy jiite bu fekkee ne amuñu benn accord ak ñeneen ñoo xamante ne nii xeemeem nañ ànd ak ñun dañuy dem législative incha allah euh, tàllal suñu loxo. bul fàttali ne législative 2017 booba la parti Teranga Sénégal di doog a créé wu 6 mois la amoon ñoo demaloon suñu bopp te daanaka du woon coalition man nii laay politique bu yeboo gars yi xamee ko noonu maanaam euh, li ñu bëgg daal mooy kenn bañ ñoo tardeel fenn. kenn bañ ñoo chantage lu jot dañuy dem dox teg suñu caution ànd ak ñi ñu war a àndal dem ceeg doole nag ak pas-pas bu jàllee xayrun bu jàllul ñu jàjj ñu defaraat suñu suñu suñu ndomba jógaat donc c'est ça législative yi incha allah bu ñu yàlla mayee fay ak tal euh, fekkeek tal dinañ defar suñu caution wax ak suñu nit defaraat suñu base yokk suñu mbooloo te jàpp naa ne mbooloo mi mën naa yokk nag ndax élection yii kilifa yi ñu topp ci Touba yi nga xam dañ doon yëngatu ci politique ak ñi dul leen yëngatu ci politique suñu dajaloo bokk pas-pas yaatal dina dina dinañ am lu bëree baree bëri. loolu man bon bu ñu doon wax euh, euh, bu ñu doon bu doon tubaab la dama naan sàmm fu au pôle nord c'est-à-dire toppatoowuma loolu man président Sall la yónnee ñenn ñi ne Ibadu Ibadu yee ko financé ñenn ñi ne Sonko la àndal ak xam nga yooyu bokkuñu. bu bu ma demee ba nekk directeur de campagne Ousmane Sonko jàpp naa ne ragaluma président Sall bëgguma wax lu ëpp nag mais <laughs> ragaluma ko ragaluma aussi ci li ma nekk euh, ñun dañu dem ci ngëm-ngëm peut-être nag convoi yu ngand yeeg ak doole jiñ ci def ak ak moyens yeeg yooyu moo tax yenn gars yi jàpp ne kii daal dafa nekk ci ginnaaw mais xanaa ñoom xamuñu ma man suis consultant international c'est-à-dire ñooñu ñu ñuy tudd bu ñu nekkuloon président de la république leen gën a baax métier maa leen gën a xam li may def. kooku nag wax dëgg yàlla bu fekkee ne li mu am yéene na ko ci man na ko cee def ñi ma xam dëgg-dëgg xam nañ ne wax dëgg yàlla bu dee financé campagne électorale rek war naa ko mën def bu fekkee loolu leen jaaxal na nit ñi maandu te bu ñu bëggee ñëw ñu ñëw jàppale ñu ci campagne bi te bàyyi wax yi. man li ci des nag vraiment du ma complexe loo du ma du ma du ma du ma teel dellu ginnaaw dañ maa xamul rek dañ maa gis ma xaw a yaru nii rek toog mais nag ku dëgër bopp la waaye boo ñu bàyyi loolu ci seen xel. te xam ne ab Ablaye Niane kenn mënu ko mënu koo xoqatal parce que nag mi ngi bëgg a yàgg ci réew mi nañ ma laaj ñi ma doon liggéeyal impôts et ñoom xam nañ ma waaw dañuy dem législative incha allah parce que lii ñu am nii autorisé nañu ñu dem législative saa ñu rangé wu ci ginnaaw kenn mën nañoo ànd ak nit nag mais déjà dañoo demal suñu bopp di xool lan lan lañ mën a wax gis nañ ne nit ñi déglu nañ nit ñi topp nañu ñu bari sax jàppoon nañ ne ñooy raw ba am na Euh, écho yu bëree bëree bari mais nag man j'ai toujours gardé la tête froide parce que man ci ay chiffres lay dox te comme bi ñuy jóg xamee bi demul woon noonu ñi ñu xamoon peut-être amoon nañ appareil bu ndaw ci fin bi la ñu xam vote yi bokkut ak euh, li nit ñi xalaat actuellement jàpp nañ ne mën nañ am dara liggéey ci bu ñu demee législative nag la ñuy am ak appareil ba ñu fay yóbbu moo ñu autorisé ñu xool 2024 mais incha allah daal bu ñu duggee assemblée nationale moom gars yi nañu am problème effectivement 2024 day taxaw parce que boobaa dinañ am programme te nit ñi ñu dégg assemblée nationale te mën nañoo def na campagne bari na fi ay président yuy ay candidat présidentiels yu fi nekk yoo xamante ne nii jàpp naa ne gënuñoo préparé naa nag lépp ci ci ci waxtaan lay doon ci li militant parti bi di xalaat ak coalition bi di xalaat aussi ci lay tëkku tënku parce que doo jóg rek ne damay dem ambi damay dem présidentielle mais nag ambition bi mi ngi fi tey la gën a wér tey la gën a leer ci ñun euh, te incha allah bëgg nañ koo mottali li ci des nag euh, résultat moo ñu koy may boo demee législative amoo benn député doo dem présidentiel loolu moo tax deux 2019 dem moon présidentiel parce que 2017 cinq mois laa def campagne euh, jàll awma député mais nag tey am na ñu am ndam ñoo xamante ni booba man maa leen ëpp doole deux 2017 te jàpp naa ne fii ñi fi doon xëccoo bu ñu demoon kenn kenn Euh, bu comme ni ma demee man mi euh, di li ma am nii dina jafe ñu am ko mais appareil effectivement mooy politique bu ñu mënee am coalition dinañ ko def mais duñ xaar coalition pour dem euh, deux mille deux mille vingt nag mi ngi suñ kanam am nañ ambition pour Sénégal bu laajee ñu dem dinañ dem bu laajul ñu dem itam am coalition ñu xool ban place lañ fay am mais daal li ñu li ma bëgg mu leer ci bopp nit ñi mooy réew mi incha allah kenn dootu ko jiiteeti te duñu dégg lu ñuy wax wala suñu xalaat. wala suñ jëf te bëgg nañ 2024 ñiy jiite réew mi ñu bokk ci loolu moom mooy wax ji léegi nag place bañ cay euh, teg ñoo ngi ñaan euh, yonent bi di ñaan Serigne tubaa mu leeral ñu place boobu mu nekk place bi gën a kawe